ñu ngi bàyyi xel ñëpp ci euh, Touba Monde bi TV lëkkaloo rajo Xassida online di leen ziara te di leen ndokkeel ci weeru mag wi ñu nekk di weeru weeru weeru barke weeru yërmande weeru njëggal ci sawara di ñaan yàlla ñu ko yàlla digale yàlla dimbali nu ba nu defe ko noone te mu nangu ko ci daraje Sëriñ Tuubaa jaam ci jotaay nu boole muy jataay bu am solo jataay bu liggéeyal sëñ Tuubaa liggéeyal ci woo rek amee nga ko ak cant <clears throat> ndax da dara da koo gënt kawe ñu ngi naan yàlla liggéey buñ ci def bu nekk rek sëñ bi sëriñ bi nangu ko defal na taw fekk ba ñu bëgg a jàllale jërëñeent ji ak mbokk yi ñu bàyyi xel mu mu ñu am ci lu kawe dara sëñ Tuubaa kon ñu jaare ñëpp di ndokkeel ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm fas yéene ànd ak yéen ci waxtaan bi incha allah. jërëjëf Serigne euh, Mame Thierno euh, mu mel ne ximma dafa bokk ci keno yi nga xam ne euh, dafa munta ñàkk ci tasawuf rawat na ci yoonu murit muy concept boo xam ne beneen seetlu biñ ci am mooy dafa mel ne boroom xam-xam yi amaguñ convergence ci lan mooy définition ximma ndax ñenn ñi nee nañ mooy farlu ñenn ñi hmm. nee nañ ximma mooy maanaam euh, lépp looy dugg rek nga xool la ca gën a kawe nga hmm. visé ko ñenn ñi ne mooy ñenn ñi ne ximma mooy maanaam la bëgg nga identifier li nga bëgg xool yoon wi nga xam ne moo la ca jaarale nga jaar ci kon euh, mel na ne mel na ne définition yi bari na lool waaye accord bi nga xam ne maanaam convergence bi nga xam ne am na ci ci Euh, mooy borom xam-xam yi ne dañ ta a ñàkk ci tasawuf Sëriñ Tuubaa hmm. boole ko ci euh, liggéeyam bi ndax wax nañ nag keroog euh, bi fi way juróom wu tedd wa jógee mam Mamoor Anta Sali 1881 dañ cee teg 1882 1883 mu woote yoonu murit ci Mbàkke Kajoor jot message bu jógee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu jàkkaarloog moom jeexlan ne ko rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi dar si faxat Euh, euh, yaral saw ñoñ ci himma waaye bu leen yar ci am jàngale kase mu mel ne faxat googu dafa bokk ci liñ naan terme clé yi nga xam ne moo nekk ci phrase boobu maanaam yaral sam saw saw ñoon ci himma waaye bu leen yar ci am jàngale kase mu mel ne sëriñ bi kon boo gisee muy jihaat ci xam-xam xam ne day ànd ak ragal yàlla mu mel ne ragal yàlla ko dafa da dëxañu ci biir ximma ndax xam-xam kese mm-hmm. doyut te ne boo xoolee xam-xam bu ànd ak mm-hmm. ragal yàlla moo waral tey jii rek misaal fii ci France euh, gis nañ mm-hmm. fi euh, imam femme am na ku naan baxlul koo xam ne moom jigéen la koo xam ne moom day jiite te moone ne euh, jullit la ci ak jullit la la judd ci la màgg ci la yaro nekk boroom xam-xam waaye xam-xam bu àndul ak ragal yàlla moo tax mu am wala muy réclamer légitimité jiite ci ay jàkka te moo ne jigéen la te ay boromi xam-xam ñoo nekk ci ma gis nañ ci hmm. tamit imam homosexuel imam koo xam ne góor jigéen la hmm. ba noppi wëlbatiku di jiite ci eh, jàkka yi te moo ne borom xam-xam la waaye xam-xam bu àndul ak ragal yàlla moo koy poussé muy def loolu. Hmm. gis nañ ci tamit eh, état bi di lëkkaloo ak ay boromi xam-xam. yoo xam ne ñu ngi fii ci biir dëkk bi e, e, ñi nga ñi ngi nekk di di réviser benn loi boo xam ne loi bi buñ ko hmm. voté léegi képp kuy defati benn xutba képp kuy defati benn hmm. xutba di nga koy yóbbu ci préfecture bi la gën a jege préfecture bi la gën a ñu jàngat xutba ba xool ba am xutba bu radical la wala déet bu fekkee ne lu ra xutba bu radical la ñu modifier la leen ci neex daal lay jox kon ñi hmm. koy def Euh, am na xam-xam waaye xam-xam bu àndul ak ragal yàlla bu leen poussé def loolu. ñetteel bi tamit. Mm. Euh, problème bi gën a mag ci monde bi mooy problème euh, insécurité. tey jii fo ne da nga fay dégg ay attaque terroriste ñi koy def dañuy mm. réclamé wu ay jullit nekk ay borom xam-xam waaye dañuy jàpp ne jihaad dafa bokk ci li li gën a fondamental ci l'islam moo tax mm-hmm. tey jii ci Occident bi foo ci dégg attaque terroriste rek boo xëyee suba dégg ko feneen mm-hmm. te ñu koy def moo leen ay borom xam-xam lañ waaye xam-xam bu àndul ragal yàlla moo leen poussé ñuy def loolu nga xam ne léegi dem nañ ba tubaab bi jox l'islam image violence léegi tubaab bi dem nañ jox l'islam image image violence jàpp nañ ne l'islam fu ñu ko tudde rek euh, violence lañ war a tudd moo tax sax bu attaque amee euh, journaliste yi question bi njëkk a posé mooy ndax ki def attaque bi tud na baatu laa ilaaha illallaah am déet buñ nee tudd na baatu laa ilaha illallah wala bu nee tudd na allahu akbar rek ñu ne kon attaque terroriste la nga xam ne kon tey jii foofu la foofu la foofu la monde bi tollu toll euh, barki dem rek laa gis ñaari tubaab li may wax ni yàggut loolu maa ko fekke gis ñaari tubaab yoo xam ne dañ doon dañ doon dañ doon dañ doon kaf kenn ki di jël dara di ko dóor morom ji naan allahu akbar nga xam ne kon nag dem dem nañ ba def ci bopp xale tubaab bi sax ci ne képp kuy def violence allahu akbar ngay ngay wax te allahu akbar hmm. bokk na ci eh, li gën a eh, tedd ci lislaam mooy takbir takbir bokk na ci li gën a ah. tedd ci lislaam ndax kuy def zikrullah takbir googu ngay def hmm. allahu akbar laa ilaha hmm. illallah te wala zikrullahi akbar ak bar tanha anil fahsaa'i wal munkar wala zikrullahi akbar la suñu borom wax ci alquran waaye ñoom dem nañ ba jël takbir googu di ko assimiler ak violence loolu lépp nag boo ko li ko waral mooy xam-xam boo xam ne dafa àndul ak ragal yàlla moo taxoon Sëriñ Tuubaa jël jihaatam nam ko ci xam-xam waaye xam-xam boo xam euh, ragal yàlla innil jaahidu mu mel ne ragal yàlla googu kon day ñëwaat ci ximma ximma gi ko hmm. euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne ko rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi dar sifxaat yaral saw ñoom ci ximma waaye bu leen yar ci am jàng kase bu doon jàng kase mën nañ na xam waaye xam bi ànd mooy xam bi ànd ak ragal yàlla Sëriñ Tuubaa ximma googu mu njëkk koo incarné njëkk ce wan yoon ndax damay wax ne ximma euh, même ku dul ab jullit sax ngir nga marqué sa territoire marqué sa époque faaw ximma ko nga jël ko jiite ko. Sëriñ Tuubaa ci famille bi mbokk bokk mënoon naa ñëw def mm. comme ñëpp def. mënoon naa ñëw mm. suivre tradition familiale ndax Sëriñ Tuubaa famille mm. famille bi mu bokk muy famille Mbàkke kenn gën leen woon. li jiitu Sëriñ Tuubaa di ñëw mm-hmm. famille Mbàkke kenn gën leen woon. ndax loolu hmm. di ko dale ci maaram jaar ci Mame Balla Aïssa ba ci Mamour Anta Sali koo jël rek euh, ab hmm. jàngalekat gu alxuraan la woon ab yarkat la woon man ci jël rek misaal hmm. Mamour Anta Sali jàngalekatu bu mag la yarekat bu mag la woon ba ci royaume du Kayor bi nga xam ne Lat Joor moo ko woon Mamour Anta Sali lañ chargé woon euh, des affaires religieuses moo nekkoon interprète bi euh, lépp lu jëm ci wàllu diina ji rek moom moo ko moo ko yoroon moo ko doon saytu moo daan tudd doom yi euh, moo daan julli néew lépp lu jëm ci wàllu diine rek Maam Mor Anta Sali la ko Lat euh, woon ndax euh, Lat Joor moo nekkoon Damel di Kajoor wax na ne sax li tax Maam Mor Soxna Jaara Bousso nekkoon Poroxaan mooy ne tafsir Maba Jaxu Ba dafa woowoon kilifa diine yi ñooro ngir protéger la woon contre contre persécution yi nga xam ne moom la caddo yi doon def ndax wax nañ ne ay jamono ceddo yi dañoo son sonaloon kilifa diine lool Mamour Anta Sali daal leen woo Porokhane euh, Tafsir Maba Diakhou Ba daal leen woo Nioro ngir protéger leen ginnaaw bi ci ne ko Mamour Anta Sali euh, sàkkoo ci moom mu sàccal ko foofu benn dëkk boo xam ne dana fay mën a jaamoo yàlla ci ko ma ci ko Tafsir Maba Diakhou Ba sancaloon Nioro mu nekk à mu euh, sancaloon Porokhane mu nekk à sept kilomètres de Nioro moo taxoon soxna jaar Jaara Bousso nekk fa ak soxna Fatou Issa ak soxna Anta Ndiaye nga xam ne kon da gis ne maanaam Mame Mor Anta Sali moom moom li jiitu sëñ bi di ñëw jamono liñ ñu ko xamee woon mooy jàng yar sëñ bi nag daf ñëwul en rupture ak loolu waaye dafa ñëw yokk ci yëfi boppam visé loo xam ne tey jii moo tax tey jii foo tudd askanu Mbàkke rek ñëpp seen xel ci Sëñ Tuubaa lay dem te moo ne Sëñ Tuubaa am na am na am na am na am na am na am na maam am na maam waaye foo tudd askanu Mbàkke ñëpp seen xel ci Sëriñ Tuubaa lay dem loolu nag li ko waral mooy fekk na fi julli fekk na fi woor fekk na fekk na fi natt asaka fekk na fi fekk na fi lépp waaye li fi indi mooy ximma ximma googu mu njëkk cee wane yoon ndax bi fi Mamoor Anta Sali jógee wax nañ ne euh, woo nañ ko maanaam ngir dénk ko li Mamoor Anta Sali yoroon mooy maanaam euh, di saytu lépp lu jëm ci wàllu diine ci tuwaayam di Kayoor waaye sëriñ bi ci la bindoon xasidaam Euh, si googu mm-hmm. di xaalul yarkan xaalul yarkan di abwaabi salaatini tans mm-hmm. jawaay sa tox ni kul ma xidi nga xam ne euh, day wax ne woo nañ ma ci ma jëng jëm ci buuri àdduna ya ngir am teraange àdduna waaye man leen rek moo ma ñor mm-hmm. mooy sama borom lenn rek moo mooy xam-xam lenn rek moo ma ñor mooy diine ak ngërëmu suñu borom kon Sëriñ Tuubaa njëkk naa wanew yoon ci lan mooy ximma maanaam njëkk naa xam moom lan la bëgg lan la bëgg ci diggante ak boromam bi mu ko xamee jaar ci yoon wi nga xam ne moo koy may moo tax euh, mu jóge Mbàkke Kajoor dem Mbàkke Bawol jóge fa dem Daaru Salaam sañ euh, dëkk bi njëkk am jóge fa dem Touba nga xam ne moom lépp loo xam ne euh, wépp yoon woo xam ne dina ci jaar ngir am yenn daraje ci suñu borom rek Sëñ Touba jaar na ci ngir lan ngir ximma jooju nga xam ne moom la teel a identifié ngir jaar ci loolu moo ko loon yoonu géejam gi exil bi xam naa ne yooyu yëpp di nga ci ñëw sax en détail Serigne Touba nan la doon dunde ximma ak nan la ci yare woon ak njabootam nan la ci yare woon ay taalibam xam naa doon lépp di nga ci waaye daal da ngay jànge ci histoire Serigne Touba que ne moom teel naa xam lan mooy ximma teel na ko identifier waaye njëkk na cee wane yoon wane yoon ko moo ko jaral ñu exilé ko diirub juróom-ñaari at ci pacte boo xam ne suñu woon na ko ak boroomam ngir lan ngir am daraja ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kenn amu ko waaye ngir nekk ab rammaakoon waaye tamit ngir nekk euh, ab taggaako taggaakoon yonent bi sallallahu boo xam ne ci éternité lay nekk sababu xaybati anna laa araada an anaala minhu jaa wa an akuna shafian li xaw ni wa an akuna xaadiman fi daw mi kon da gis ne Serigne Touba boobu euh, xamoon na maanaam euh, mission boobu lan moo ko ci fekk lan moo ci fekk te épreuve nan moo ko ci fekk ci ay euh, mettital waaye yooyu yëpp da koo muñoon xamoon ne lim lim bëggoon mooy ñett yooyu nga xam ne moom laa tudd. moom la mm-hmm. jafe. kon Sëriñ Tuubaa xima moom da cee njëkk wane yoon lu jiitu mu ci yar ñi nga xamante ne bi mm-hmm. ñoom la ñoom la ñoom la defar mooy kàngami kàngami yoon wi ñi nga xam ne ñooy ay rakkam ñi nga xam ne ñooy ñooy ay taalibeem kon suñu maam Thierno dama lay bàyyi rek nga doxal ci euh, ban dégg-dégg. la mutasawwifuna am ci ci ximma waaye ban dég dégg la ci Sëriñ am euh, nan la ko Sëriñ Tuubaa doon moom jëm boppam nan la ci yare woon ay taalibaam bisimilah mm-hmm. jërëjëf sëñ Abdou ci ubbi bu am solo bi euh, daa mel ni leeral nga lu bari ci eh, li ñu li ñu waxtaane mooy mu jëm ci immatul aali mooy yitte ju kawe yitte ju kawe euh, bu ñu xoolee contexte bi nga indi ci li sëñ bi nekkoon ak li ko yonent bi digal dinañ mën a xam ci li mu jóge ak ci li mu jëm ndax ku ne xam na ne sëñ bi comme ni nga ko waxee waajuram daara la yoroon di jàngale xam-xam ñu bari ci doomi sëriñ yi sax ñu ci baree bari eh, dellusiwaat nañ ci daaraam di ci sàkku si xam-xam ndax dafa mel ni daara bi mu université la université la boo xam ne fond bi euh, xam-xam yëpp mooy fànn xam-xam yëpp dañ ko forom jàngale le hmm. ci nekkee nag mu ko ciy dimbali yàlla dogal mooy ki gënoon a taamu ci jàng ci moom ci daara ji ndax euh, fasaha bi mu amoon ak leer gi ànd ak moom ak sàmm gi nekkoon ci moom te xam nga xam-xam dañ cee gën a soxla ak sàmm moo ak leer la goo xam ni ci ki sàmm moom lay moom lay gën a nekk ci moom te ki ki nga xam ne moo sàmm booy jàngee ci moom leer googu di bàyyi ci mom ci xam-xamam ngay gën a gaaw li ngay li ngay jàng ndax euh, xam-xam ak leer la ci ruux lay jëm léegi kii ci sàmm ku mel ni sëñ bi kii jànge ci moom ci la xam-xam bi di gën a gaaw a dugg ci moom moo taxoon ñu bari taamu ko ci jànge ci moom euh, ba tax na wax nañ ni bu fekkee ni waajuram daf daan génn day jël bind ñu bari ci daara ji dénk ko ko ko ngir mu ngir mu jàngal leen nga xam ne da koy jàngal bindi ñooñee Eh, mu war war a jàng ci diggante bi ngir mu jàngal leen fii ak muy ñëw ba yàlla dogal baayam doyloo ko ci daar ba bi ñuy jàng fekk na mu taalif ay téere yoo xam ne baayam jël na ko jàngal ko ñaaram ci doo ci ay doom muy Mawaahibul Quddus ak ak Mulayyinu Sudur yi nga xam ne jàngal na ko nee nañ suñ Balla Coro ak suñu Afiya eh, kon loolu dafa ah, fekk kon suñ baayam doyloo woon na xam-xamam bi nga xam ni ah, amoon doyloo ko ci lépp ci ci ci ci mu féete ko fépp itam waaye yàlla dogal bi nga xamee ni baayam wuy ji na boroomam loolu mi ngi ci mille trois cent euh, dëppoog mille huit cent quatre euh, ci Mbàkke Kajoor Mbàkke Kajoor wala quatre vingt et un ci la ci la wuy ji euh, ñu denc ko fële ca déqale yàlla dogal itam loolu nga wax ni baayam li mu féete Lat Joor ci nekk xaab di ko atteel yor mbiri diine yi ñu dénk ko lépp Euh, sëñ sëñ tafsir Ahmadou Ndoumbé Mar Syll mi nga xam ne mooy hmm. moo moo jullee sëñ Maam Mor Anta Sali moom sàkku ci sëriñ bi ngir mu dem ci Lat Joor ngir euh, féete ko fi ko sëñ Maam Mor Anta Sali féete woon sëriñ bi rafetlu taxawaay bi mu am ci waajuram euh, jaale ko ko waaye itam ginnaaw bi mu xamal ko ni ko ni ko nag seq sama jéego ci buntu buur moom du lu may man ci la taalifi xasidaam googu comme ni nga ko waxee xam le ni xaalul erkan li abwaabi salaatin xalo leer kan li abwaabi salaatin taw jiwa idi tourni kullama ayn qultu asbi ya rabbi waktafaytu bihi wala suraadi xayril ilmi wa diin nee nañ ma ma jéng jëm ci buntu buur yi waaye ma wax leen ni leen rek yàlla doy na ma te doyloo naa ko duma gërëm lu xam-xam ak diine booba ma ngay tàmbalee feeñal yitte ji nga xam ni jëmu jëmukaay bi mu jëm bi wuuteeg fi nit ñi jëm ndax loola mënoon nañ ko tëkkale ak su doon jamono bi ñu ni président soxla la ci war laa féete nga war koo féete ci wetam mu yor la sa lépp ni jamono méttee surtout jamono jooju sama moo gënoon a métti nga nangu koo gàntal euh, ngir ngir ngir ngir wuti ngir jamono jooju nag ci lañ tàmbali ni naka jëkk yoo xam ne dafa wér ndax wéradi gi ñu doon wax ci moom ci melokaanu wow mu mel ba nit ñi njort ne dafa wér bi mu waxee lool nag ñu bari dañoo gën a dëggal ci seen xel ni kii kat wéru ndax wéra di gi ñu doon wax ci moom gis nañ ko léegi mhm. léegi moo tax mu bindaat geneen xeesu da wax xaaloo safi on li sarfi an humu bu sari wax nañ ne man kat damaa damaa ñàkk damaa di am xel ndax euh, wëlbati gi mu wëlbati sama gis ci leneen lu bokkut ak ñoom la ñu gis la waral ñu jàpp ne man de damaa de dama dama dama xaw a dese ci wàllu xel waaye sama dese di ko euh, na ma ndax Euh, moom li mu jàpp li mu jàppee li mu jàppee am xel ñoom moom lañ jàppee desadi kon foofu it ñu tàmbali cee xam kon yitte ji nga xam am na ko ci wut boroomam ci wan gannaaw lépp luy luy luy àdduna jamono jooju nag xam nga ni sëñ bi daf doon ndox dafa wax ni walam azal munzu xaqaltu taaliba maarifatan billahi jalla taaliba mosuma dal deñ ba ma xam amee am xel ak tey ci di wut yàlla di wut yàlla fa jultu bayna al ulama wal awliya may muy dox ci diggante nit yàlla borom xam-xam yi ak wàllu yi ci noonu bi waajuram génne àdduna gis nga ci la dem ci la dem gànnaar dem gànnaar ngir eh, jaale ñenn ci sëriñi waajuram ya génn àdduna muy Cheikh Sidiya Baba bu mag ma waaye itam ba mu fa demee dafa jëlaat werdu xaab ba mu ko jëlee it mu woy as-silsilatul xaadiriya ba mu ñibbisee ci la ñëw ci maam as kamara moom itam mu yeesalaatal ko werdu xaadir jox bubbum Sëriñ Abdou Khadre Jili moom mu ko joxoon loolu mooy dox loolu mooy kon bàyyi wutoon ba tey dox boobu nga xam ne moom la doon dox jëm ci boromam ngir di ko ut ci ci mm. borom xam-xam yi ak ak wàllu yi waaye bi mu dellu si waatee Mbàkke ba nekk ci njàngale ma di jàngale daf daa junj junj junj yu am solo mooy danaa wax ni kat doomi soxna doomi soxna ju man alxuraan man koo tari min alif ilaa yaa mooy tari ko ba mu jeex loolu kat am na solo waaye fexe ba bu bu xalima ak suñu borom nga digg nga koy dégg moo ëpp solo ñu doon kon yitte ju kawe ci nit ki nan la yittewoo yàlla ba wuti ko ba ba ba àgg ci borom loolu mooy li am solo waaye du xam-xamu ndax euh, xam-xam noonu mu ko waxee rek xam-xamu kese amul njariñ xam-xam boo xam ni àndut ak ku ragal yàlla it amul xam boo xam ni jëf wuñ ko it li fekk jëf wuñ du am njariñ jëm ne xam ci bu ñu toppal kenn alliwoom kenn bindee ba noppi alxuraan mu ko koy toppal mu koy wax ne ko a ah, lii kat am na solo lool doomi soxna ju man alxuraan man koo bind mokkal man koo tari am na solo lool waaye fexe nag ba lawhul mahfuz bu xalima ga di bind nga koy dégg mu ëpp ci xol yi jamono jooju xëy na doon na jaaxal nit ñi ci eh, loolu nan la war a mën a ndax yitte jim toll ak fi nit ñi toll dafa wuute waaye teewul ci jamono boobu am nañu ko doyloo ci seen bopp doyloo ko ci seen ci seen waaye nag booba mënaguñ koo jox seen bopp ndax gisaguñu benn mandarga muy wane ni woote na jëme ci borom ba tax nag boo xoolee sëñ Modou Anta Jaxate mi bàyyi si ñam si sëñ sëñ Daam Abdourahmaan la ñoom teeloon nañoo wëlërante ci sëñ bi kat ni mu mel ci sell ci mbaax ci sàmm su fekkee ni woote na ñun nañ ko jox suñu bopp ñoom teeloon nañ ñoom ay wëlërante ay wëlërante lañ woon yoo xam teeloon nañoo wëlërante lool ci loolu ba tax na ñu bari ci daar daara ji sëñ Ahmadul Muxtaar Mbay bàyyi sëñ Jalo bay moom itam ku teel a doyloo sëñ bi la daanaka da koo defoon ab sëriñ rek ci jamono yi nga xam ne sax wooteegul yoon bi ñu wax ne nag ci jamono boobu nag euh, li bàyyam nelawee lu toll lu matul ñaari at diggante boobu muy jàngale xam-xam da ciy jàngale di jàngale di jàngale bay jàngale téere bi ñuy wax alfiyatu nu malik jàngale téere bi ñuy wax alfiyatu mu malik ba àgg ci buntum naat naat euh, mu àgg ci buntum naat nee na ci la ko bi nag dikkal nee na jamono boobu sax bis boobu bisu àjjuma la waaye mujj gi mënatul toog day baagante ci biir ci biir activité bi dem ak ñëw ngir bëgg a jàllale li ko yoon ci wax waaye mu mel ne dafa jafe ci muy dem ak ñëw di dem ak ñëw loolu mi ngi am ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor di bisub aljumaa eh, ci eh, Mbàkke Kajoor 1883 ci la ko yorenti bi nag dikkal ci musaafa mooy mooy musaafa mooy loo xam ne day mel ni janeel rek mm. noonu la ko dikkalee eh, wax ko ni ko rabbi asxaabaka wala turabbihim bi dara jaral te nit ñi nag léegi ci bu bu leen yem bu ñu yemul léegi ci njàngum kese waaye nañu nañu nañu nañu nañu nag yéeg jëm ci seen borom mooy ci misaal ci gàttal mooy liñ doon jàng nañ ko jëfee rek. Hmm. liñ doon jàng nañ ko nañ ko nañ ko nañ ko jëfee léegi bu ñu yem ci njàngum kese rek waaye nañ jëfee nag euh, jëm ci seen borom kon léegi nag foofu la séparation amee la mu nekkoon ak li mu jëm kon mel na ne la mu nekkoon la mu doon am am njariñ Euh, lool loola kese duñ mooy ndax bu njëkk booba loolu rek lañ xamoon mooy xam-xamu euh, riwaaya mooy nga jàng am xam-xam doomi soxna moom dangay jàng am xam-xam léegi foo dem sol dara ju rëy di waare wari fas nit ñi topp la nga ngay ngay wane dangaa am xam-xam di way ay way di di di tari alxuraan num la neexe di di ko di ko ko di ko ko taakuraane Euh, moo waral kon sëriñ bi xam ni lii rek du lu am njariñ hmm. lii rek amul njariñ bu dee rek la moom amul njariñ ndax du jariñ kenn dara waaye xam-xam bi nga xam ne mooy jariñ nit mooy xam-xam ragal yàlla mooy ni nga ko waxee ni nga ko waxee moom ni hmm. euh, dafa jóg ngir jihaad jihaad joojee nag xam nga yonente bi alayhi salaatu salaam dafa waxoon ni euh, jixaat ji ju ndaw ji jeex na ñu ne ko waaw jihaad ju ndaw ji moom nu mu nu mu nu jeexe mu ne jël des na jihaat ju mag ñu ko ñu jàppoon ni jihaat ci ay ngànnaay ji ñu doon def de mooy jihaat ju mag ñu leen déedéet jooju mooy jihaat ju ndaw ji ni leen jihaat ju mag mooy jihaat ju mag ji mooy jihaat jihaat ju mooy jihaat ak sa wala di jihaat ak ñeenti noon yi te mooy eh, seytaane bànneex àdduna ñeenti noonu yooyu jihaat ak ñoom kon mooy jihaat ji mag ñeenti noonu yooyu nag sëñ bi définir na maanaam ni mu ni mu def ak ñoom ndax wax na ni eh, jaawartu bil furxaan rabbiyal mu'in malaktu nafsiya malaktu nafsiya mu ni bakkan mu ni man sama bakkan dama fexe ba moom ko moom naa ko malaktu nafsiya ñu ni iblis mu ni wastax sànkullahin yàlla jax-jaxee ne ko mu jëm ci feneen keneen ku dul man ñu ne àdduna mu ne aqasu min dunyaahu zaadi lil jinaan àdduna moom lenn képp laa fi mooy yóbbal bu jëm àjjana soxla wu ma dara lu dul bu jëm àjjana mooy li yonente bi waxoon ni eh, na ngeen eh, kun ka annaka xaribun aw aadi aw du sabil na ngeen mel ci àdduna ni koo xam ne dafa dox ci kaw yoon wu tàng jër ba yem ci genn kër toog ca di noppalu diggante ba muy def ci kër googu rek na mel ni loolu mooy jaar waa bi mu jaar ci àdduna nga xam soxlawu ci dara eh, léegi sëñ bi ne kon aqasu min dunyaahu zaadi li li jinaan ñu ne ko bànneex nag mu ne wan xaadali la hawaa wani safal jinaan bi mu ne nag waalaan yi abraaru fii wan xaadali benn daan xiraaya dañ raafaxan ni ilal jinaani kon ñett yi mu waxoon yàlla natol na ko ko te mooy bakkan banneex adduna wax na ñett yi yi muy wax léegi mu des kon seytaane mu ni raafaxan ni ilal jinaan na jiimu wali siwaaya si en rajiim seytaane moom yàlla jéemee nekk ku man kon euh, ñeenti noonu moom kon wax na ni mu ko def ñeenti noonu yooyu nag mooy jihaad ju mag bi nga xam ne nag moom la yonent bi junjoon ci ni mooy mooy mooy jihaad bi def moo tax nag bi ko suñ borom waxee ni ko euh, li nga wax léegi maanaam euh, himma borom xam-xam yi dañ cee wuute rawat na ci yoon wi niñ ko déggee ñii ak farlu la ñii ni mooy nga xool lu kawe nga acci sa yitte bëgg caa dem nga lu kawe nga ak séyte bëgg caa dem ñi ni mooy positif positif mooy positif ak farlu day dugg ci ci biiram positif mooy lépp looy def nga defee ko positif am am te ju ci nga lu baax nga farlu ci jëm jëm jëm ci sa borom mel na ni dañoo jommale woon nit ñi eh, nit ñi dañoo jommale woon seen bopp ci xamuñu nu ñuy def ba wut yàlla nu ñuy def ba dem ci suñu borom waaye yitte ju kawe mën mën na koo tekkee rek dogu dogu bu wér jëm ci sa borom te li fekk amoo ko do dëpp dogu dogu bu jëm ci sa borom te li fekk da dajewoo ak moom doo ki jëm ci boromam li muy yóbbuloo mooy wax ji Sëñ Tuubaa wax ci Masaalikul Jinaan te mooy idil muridu la yuridu abada xayra ridar rahmani ay su xasida benn objectif rek ngay am mooy ngërëmul yàlla moo waral bi nga xamee ñooy sóobu sóobu nañ nag ci yitte jooju mu woote ñenn ñaar mu ne képp koo xam ne ñëwoon nga fi ngir xam-xamu kese man ngaa def eh, ci ci ci faneen am na faneen fudul fii koo xam ne nag li ma bëgg nga bëgg kon moom li mu bëggoon mooy dem ci boromam waaye yóbbu ci nit yóbbu nit ñi ci seen borom looloo doon woote jëm moo waral mu ne koo xam ne loo li ma bëgg nga bëgg nag ñëwal ñu dem ba ñëwee nag ñu war a la xamal ne nag euh, foofee nag ci num jaarwaay yooyee mu jaar nag foofee fa la yitte ji yi ñuy waxtaane nag di feeñ mm-hmm. ndax la mu jëkk a def mooy ànd ak ñoom ci melo woo xam ne dañuy jàngal xuraan lu bari lu bari te loolu lépp mooy melaw wut yàlla bi te mooy ak seen yitte ci li gën a kawe te mooy ngërëmul yàlla seen yitte ci li gën a kawe mooy ngërëmul yàlla dafa am ju suufe am ju kawe yitte ju mm-hmm. suufe mooy comme li ñuy wax yitte picc yi adduna nga fexe ba am fi yitte woo fi am amu kër boo amee kër picc yi sax mën nañoo am kër ndax danañ fexe ba dafa tàgg nga mën fexe ba eh, am am oto picc yi sax yàlla jox na leen laafu yu ñu naawe ak buñ fexe yuñ mën a buñ bëggee déplacé wu du ko def nga fexe bay lekk picc yi sax bu bu bu bu bëggee lekk day lekk nga fexe ba ba ba am denc soxna ak yu mel noonu yooyu mooy yitte yi gën a suuf waaye hmm. yitte ju kawe nag ñi ci gën a kawe mooy am ngërëmul yàlla moo tax sëñ bi yàlla woote boo ko gisee bay bi ni ñu ko waxee sax mooy idil muridu la wax hmm. laa yuridu nga xam ni dafa dafa dàq lépp laa yuridu abada xayra lidar rahmaani ay su qasada génn yitte moo war a doon yittey murid bi te mooy ngërëmul yàlla léegi nag moo tax mu tàmbali di leen jàngaloo alquran jàngal alquran bu bari ñuy xiif di beru di zikkar lu ëppoon ci jamono yooyu la ñuy mooy laa ilaha illallah ngir setal seen xol ak ak gën a jege seen borom jamono leen nag ñu bari ci ñoom euh, nit ñi tàmbali leen di leen bedd ndax booba xamuñu li ñuy def lu mu doon ndax booba topp sa bakkan topp sa bànneex euh, am ay caaxaan dafa lëmbe réew dell ci réew mi looloo waral booba xamuñu li ñuy def moo tax ñu bari ci ñoom noonu leen biñ leen di noonu it ñenn seen mbokk bàyyi nañ leen ngir ngir ngir loola boobu xamuñu ko woon ndax booba mu muriti tijaan yi fi nekkoon nga xam ne ay murit lañ ak muriti xaadir yi nekkoon soobu gi sëriñ bi soobu ak waa nitam dafa wuute ak soobu gi ahlu tasawuf sax daan soobu dëggu gi dëgg ci gi ak ànd gi ñu ànd moom ci ci dëggu googu ak coono yu metti yi ñu ciy dund yooyu mosuñu koo gis maanaam loolu dafa jéggi seenu seenu gis jéggi seenu dégg jàpp nañ loolu kenn mënul mënul def loolu mooy bàyyi sa lépp soobu jëm ci wuti yàlla ngir yàlla rek tax laa jóg nga xam ne mën ngaa dogal lépp ci àdduna bàyyi ko loolu waral bi ñu tàmbali nag duñ leen may ay soxna ñenn ñi ci am ñoo xam ne soxna leen mayoon soxna dañ ko nangu loolu ñu ngi ko tàmbalee dund ci Mbàkke Kajoor ba waral sëriñ bi eh, daal di gàddaay gàddaay Mbàkke Kajoor daal di jàpp ni kon dëkk bii nga xam ne moom la Amari Ngoone Sabel daggaloon ay maam te muy Mbàkke jàpp na ni fii kat xëy na kon mën naa am fi gën a mën a amu yaatu fi lay gën a mën a dunde lii ko yonent bi digaloon mu woote ko mu mu mu ànd ceeg nitam ñooñu bi mu ñëwee Mbàkke yàlla dogal mel ni Mbàkke fa la gën a jafe ndax ñàkk guñ ñàkk xam ñu ci ëpp ñàkk guñ ñàkk xam lii muy woote lu mu doon ba tax ñu ñu ko lool ci ci jaxasoo gi ci diggante taalibe yi ak ñenn ci waa waa waa Mbàkke yi dëkkaloon mu mujj ci biir mbake mu tuxuwaat jóge fii mu nekkoon ci eh, fii kër sëñ Fallu gi nekkoon dem tuxu fële ca armeel yi yële sëñ Mbusoobe nekk ak sëñ Mamoor Jaara mm-hmm. waaye diir bu néew eh, lañ lañ wax ni diggante boobu nag naka jëkk dafa mën a ci dox ci biir àll bi di foofu di di di yar taalibe yi ci wéet googu mu daan wéet dugg àll bi ak di tudd yàlla lu bari ak di dugg àll bi di fuugloonte ak euh, boromam loolu da cee da cee mas nekk diir boobu nee nañ daana jógee foofu Mbàkke di dem Daaru Salaam ci suuf si di fa di fa ànd ak maam Cheikh ak ñu bari ci magi murid yi di di di di di ci àll boobu ba mu gi ci la ko euh, ci la ci la nee nañ am pël bu ñëw ci sëñ Mamour Diarra ni ko gis na ni kat pël ba sax xam naa intérim ci booba sëñ bi da xëy na da a sonal ci dek gi mu fa dëkk hmm. ndax dañoo wax ni mujj gi ñoom pël yi dañuy am jafe-jafe ak Cheikh Ibra ndax ñoom dañoo bëggoon a jàpp eh, maanaam nitu kese rek te Cheikh ko nangu ci loolu moo waral ñëgg-ñëgg tàmbali am seen diggante neen kenn ci ñoom dem sëñ Mamour Diarra ni ko ah sëriñ sëriñ kat boo ko waxoon mu tuxu ndax man gis naa suuf su yaatu ci penk bi dégg nga fekk na sëñ bi gis ko eh, boo ko waxoon mu tuxu foofu dana gën a mën a amug yaatu te ko waaye liy def ci nammeelu yàlla sëñ moom fu mu mën a yare nit ñi ñi àndal rek loolu loolu loolu mooy li mu bëgg te fekk na yàlla it junjoon na ko bu yàgg eh, Tuuba waaye xamagul fan la waaye xam fan la loola waral sëñ Mamadou Diarra bi mu waxtaanee moom mu mu mu ànd moom ci. génn Mbàkke sanc beneen dëkk loolu waral nag mu ñëw ba Daaru Salaam suuf soosu daal di koy daal koy daal di koy sanc mu sanc kon Daaru bi dëkk bi njëkk am Daaru Salaam itam ba mu foofu dafa gën a leere ci lii ma doon wax ci li mu bëgg ndax li nga aj sa yitte jëm ci mooy mooy li gën a kawe ta mooy ngërëmul yàlla dafa am ay escalier yu nit ki jaar ba àgg escalier yi jaar mooy li mooy li waa ahlu tastawuf mooy seen melo yi ñuy lim seen bi lim ko ci xal bu kaw seen melo yi bokk na ci bokk na ci xiif xiif bu digg doomu beru eh, di di di néewal ay nelaw néewal ab jaxasoo hmm. oh, bàyyi wax ju amul njëriñ eh, boole ci ragal yàlla biir ak xam ne mooy ponk bi ko tënk bi ñëwee daaru salaam it dani li ma gënoon a bëgg ci yar ñi ma àndaloon maa ngi ko njëkk amee ci Darou di wét wéetaay xam ne eh, dañuy dañuy sikar lu bari di sikar laa ilaha illallah nee nañ guddi yëpp dañuy wax laa ilaha illallah muhammadun rasulullah loolu lañ doon sikar ci jamono yooyu sëñ bi itam di noddal boppam foofu mook sëñ Ahmadul Maxtaar Mbay danañ awantoo nodd gi fii ci barab maam Cheikh Anta ñu nga xam ni bu kii noddee tisbaar kii nodd takkusaan bu kii noddee timis kii nodd mu dugg fa ay ay xalwat yu bari itam nga xam ne murid yëpp njëkk a njëkk leen a tërbiya foofee la seen tërbiya ma tey ndax nañ ni armeel Daaru Salaam yooyu eh, ay Cheikh Ibrahima Fall daana fa bay ñam ay toolam la woon yàlla dogalee kon murid yooyu yëpp seen tërbiya mat foofu bi mu ñëwee Touba ci la leen ci la leen ci la leen ci la leen gërëm ni leen léegi am ngeen ngërëmul yàlla kon diggante Mbàkke Kajoor ba Mbàkke ba Daaru Salaam murid yooyu mu njëkk ànd ca njëlbeen ka ca Mbàkke Kajoor ga ñoom foofee la leen la leen seen seen seen eh, ca lañu ca ci eh, ngërëmul yàlla nag sëñ bi gërëm leen yeewi leen eh, ba ci la joxe maam Cheikh Anta nag Daaru mm. waaye bi mu ñëwee Tuuba ci lay xamal ni soobu googu dëgg la ñëpp di ko nag di jaaxle ci moom ci la Xaadima Jaxate Kala yónni sëñ Ibrahima ñaan moomu mu bind Euh, wenn bayit di xool ndax sóobu gi muy wax ci digganteem ak boroomam lu wér la am de xaadi di kon tu tax mu bind xuqal euh, bukaawu ala saadaati namwaati tabukil aradi alayhim sama wa sëñ bi dafa jëfandikoo euh, day wane ne kuy wax lu sori tey wax lu jege jëmmi xuqal bukaawu sëñ bi sóobu gi mu sóobu boppam la ci wax maanaam day mel ni kuy wax ak saxaaba yi wala gaa yu baax ñi te fekk bu jëmmi boppam ci boppam lay wax yoon wi nekk lu mu rek ndax xaade bi mu ko nattoo ba bind ko loolu eh, ci la sëñ bi daal di wéyale xasida gi bi ko bindee nag ci la xaade ni ah waaw kii nag soobu bi muy wax ci diggante mu borom lu dëggu la soobu na diggante mu borom ndax ci lay wax eh, yitte yi yitte ñu amoon ak seen melaw yi ñu amoon ak li doonoon seen aada li doonoon seen baax ci jaamu yàlla ci wéetal ko beru ci wéet ci wan gannaaw ay jigéen ci wan gannaaw xaalis ci wan gannaaw bàyyi nelaw yu bari bàyyi nelaw guddi di fuulanteeg seen borom yooyu la la di wax ci xoqal bu kaaw te mooy soobu gi nga xam ne soobu na ko wan gannaaw lépp jëm ci boromam kon euh, foofu liñ ci xamee rek mooy mm-hmm. euh, yitte yitte yitte ju kawe mooy bàyyi bàyyi yitte yi gën a suufe jëm ci yitte ji gën a kawe nag yi te yi yi kawe yi bari na waaye bi ci gën a kawe nga xam ne moo am bu yi ci def yëpp mooy ngërëmul yàlla moo tax sëñ bi ni murit bu soobu kon murit bu soobu benn objectif la war a am te mooy làq ngërëmul yàlla dañoo wax ne diggante boobu nag biñ nekkee tuubaa sax ci la ñuy suivre ci ay murit xam nga baatu murit ñoom ba sëñ bi woote waxut ni eh, yaa maanaam murit yi lay woo waaye ahlu tasawuf naka jekk ñi soobu yoonu yàlla dañ leen tudd murit moo tax man la am na muriti tijaan yu fi nekkoon ñoo xam ne ay ahlu waa ahlu tasawuf lañ am na ay muriti xaadir yu fi nekkoon ñoo xam ne ay waa ahlu lañ waaye suubu gi waa kër sëriñ bi soobu hmm. ba yàlla dogal isuñu lu lu leen jiitu ko soobu woon nu mel noonu nangoo bàyyi seen lépp dëggu ci soobu googu moo waral mujj gi ñu jékki-jékki ñu ñëpp rek àndandoo di leen wooye ay murit nga xam day mel ni baatum murit dafa dëggu ci ñoom te fekk baat la boo xam ne sax naka jekk tasawuf moom lañ daan wooye képp ku mën si moom la ñuy wooye képp koo xam ne jëm na ci yoon yàlla waaye dafa mel ni noonu yàlla jagleel yeneen baat ci lu mel ne ay xidma yeneen a geneen yoo xam ne ni ko sëñ bi di jëfandikoo da koy jagleel ba mel ni moom rek moo ko mos a jëfandikoo noonee la biñ gisee soobu gu dëgg googu la mu mujj rek di leen tuddee morid yi di de tuddee yi nga xam daa mel ne fu ñu ko tuddee rek dañ cee jubloo wax ñu ànd ak sëñ Tuubaa fekk sax baatu murit nekk jekki soobu yoon tasawuf yëpp am na ay murit xaad am ay murit tijaan diggante boobu nag dafa bari réew mi ñu buur ci tijaan yi ak xaadir yi ak saadali yi di ñëw ci Sëriñ ndax daa mel ni fi lañ gën a yëg yàlla fekkiwul ne fañ jógee amul yàlla waaye daa mel ni soobu gu dëgg googu ak noonu noonu mu mel ci digganteem boromam ci moom lañ ko njëkk a eh, ñu ci bari it ci moom la gën a yëg yàlla donte ni fañ jógee woon am na yàlla waaye ñu ñëw soobu ngir ànd ak moom Mm-hmm. boobee nag ñu bari ci murid yi taal nañ seen kër ñu bari dóor nañ leen dóor yu metti ñu bari it nañ leen ci seen biir yi mbokk ngir ngir dëggu dëggu soobu googu ñu ñu dëggu ñu tàmbal leen nag di leen tudde ñu xam ni xat nañ lool ba ay fu fu leen waaye gisee da leen di mën a identifier ci ñee ñooy murit yi mooy ñi ñi murit yi ñi ñi nga xam ñoo ànd ak Sëñ Tuubaa ñu leen di waate wooyu baatu murit nga xam suñ ne murit rek dañu dañuy dañuy xam ne ñoom ñooñu lañ ci suñu kon eh, yit yitte ji mooy jël xol lu kawe nga aj ci sa yitte mm-hmm. lay la nga xam ni moo la ci yoon wa ngay jaar nag mm-hmm. mooy la cay metti lépp ci ay tartar ak coono nga muñ ngir jëm yàlla muñ ko muñ ko ngir jëm yàlla moo tax ku ci mas a ñëw jàmbat sëñ bi ni ko coono yu metti yi ñuy daj ci dóor yi leen di dóor yàqal yi leen di yàqal ci génn gi ñu leen di génn na ñàkk nangoo jaxasoo ak ñoom mu leen di wax ni yéen kat na ngeen xam ne saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci diine te ñoom kat dajoon nañ coono yoo xam ni àggagoo leen ci daj ñoom kat daa nañ jël kenn lu mel ne ab si xar diggante jëmmam ñaari xaaj te du tax mu wedd yàlla te yéen àgg leen foofu kon nag na ngeen muñ te doyloo seen borom te gën a góorgóorlu te xam ne saxaaba yi ñooy seeni bàyyi ci diir kon mel na loolu ab junj la bu am solo sëriñ bi ite ju kawe waaye mel na ni bu doon ñëw ci e, ma daane la foofu bu ñëw ci ñaareelu xaaj mooy bokk na ci ite ju kawe mooy kenn ba bari jéem ko échec sëñ bi jéem ko mu réew jéem ko ko def jàpp ne mën na caa àgg xam ba dañoo jàpp ne al insaan kaamil mënta nekk mooy nit ku parfait sëñ bi jàngal gëm loon ni mën naa nekk dafa hmm. fekkoon lépp lu ñu mënta nekk ba ñëpp jaaxle ci mu ni mën naa nekk ndax ci jamono bi mu naan day yóbbu nit ci yàlla li taxoon kenn mënu ko gëm mooy booba kenn kenn kenn ku yóbbu kenn ci jamono jooju di di jàpp nit ne da koy yóbbu ci yàlla dafa jomme woon moo waral bi mu fekkee li ñu dafa jomm moom mu ni da leen yóbbu ci yàlla mm-hmm. madinatul fadiliya bi moo doon wax muy muy muy Tuuba eh, nitu yàlla ci mm-hmm. bëgg dëkk boo xam ne lépp dafay baax mm-hmm. dëkk boo xam ne eh, ndigalul yàlla rek a fay am naa ne boobu sax dama bëgg ñu mujje ko waaw dañ ko jéem daal di échec sëñ bi ni mën naa nekk. kon loolu bokk ci lu baax lu tëb. kon la kàddu gi. waaw jërëjëf ci euh, taxaw seetlu bu am solo bi nga xam ne def nga ko. ci yitte ju kawe mu mel ne li nga xam ne moom la tàmbale woon ko daat koy gàttal. mel na ne la ca dëngoon jubbanti nga ko waaye la ca mattoon matli nga ko indi eh, nga définition himma ci ni nga ko ci ni nga ko déggee wala ci lu ñu bari ci borom xam-xam yi niñ ko niñ ko niñ ko déggee waaye nga indi nga tamit maanaam yitte ju kawe mooy lan ci yoonu murit mooy am ngërëmul yàlla andi nga baytu eh, sëriñ Tuubaa bu siiw boobu ci isil muridu la yuridu abadan xayra rida rahman xaysu xasada mu mel na kon maanaam benn maqasid rek la murit door a mooy ngërëmul yàlla ngërëmul yàlla amul niveau bu ko gën a kawe ci euh, waa ahlu tasawuf wax nga tamit Serigne Touba maanaam euh, dund gi doon dund gi mu doon dund tasawuf ak euh, visé gi mu doon visé yi tëju kawe nan la ko nan la ko dundee moom ci histoire boppam ndax ci début bi doon nañ ko traité ab dof doon nañ jàpp doon nañ wax naan dof la ba ci la waxoon xaalu sapion kooku mu mel ne loolu dafa nekk loo xam ne dafa nekk da cee nekk en convergence ak ak ñi nga xam ne ñooy philosophie ndax euh, philosophie mag yi boo jëlee ay Platon ay Descartes ay Kant ñooñu ñëpp ci seen dëgg yi dañ leen dañ leen jàpp ay dof moo tax ci philosophie am na lu ñu naan déviance maanaam yow bu fekkee ne daa am yitte ju kawe joo am rek faaw yow ab dof lañ lay lañ lay lañ lay jàppe faaw nga ñëw en rupture ak li nga xam ne moom la fekkoon te loolu boo ko tàmbalee def rek nit ñi ci njëlbeen nga ab dof lañ jàppe waaye lu lu lu lu dund gi di gën dem rek avec le temps dañ la mujj comprendre Sëñ Tuubaa nag euh, foofu la tàmbale woon aku aku ñoñam ba ñu mujj xam ne lii kii kat nekk suñu borom lay wut kii nekk yàlla lay wut. moo tax lii maam Cheikh Ibrahima doon wax ci euh, dof ci nit ñi wéer fa yàlla loolu mooy loolu maanaam ci njëlbeen gi nit ñi dañ la jàpp ab dof waaye yow wër gi ngay wër suñu borom moo tax dangay da ngay nekk en rupture ak tradition bi nga xam ne moom nga fekkoon loolu nag Sëriñ Tuubaa nekk nekk ci. Euh, Ankoma ak ñu bëree bëri ñi nga xamante ne bi tey marqué nañ euh, histoire euh, identifier mboolem yi nga xam ne day tax mu àgg ci boromam wax nga léegi ñeenti noon yi mooy àdduna ak saytaane ak bakkan ak bànneex ak nga xam ne Sëriñ Tuubaa moom ci lépp loo xam ne day tax maanaam mu àgg ci suñu borom rek teel na koo identifier ba jaar ci moo tax mu doon wax ne kullun lahu himmatin yarqi biha abadan ila azizin mu'assin bil futuhaati nga xam ne mu mel ne moom euh, wër gi mu doon wër yitte ju ko rek ci boppam waaye da cee yar ñi nga xamante ne bii ñoom la àndaloon. moo tax ma ne képp ci ñi nga xam ne ñoom la àndaloon. ku ci mel ne maam Cheikh Ibrahima Fall ku Anta. ku ci mel ne maam Thierno Birahim nga xam ne mag ñooñu nga xam ne ñu ëpp ci ñoom bi ñuy ñëw ci sëriñ sëriñ bi ñenn ñi amoon nañ alal ñenn amoon nañ xam-xam ñenn amoon nañ daraja mën naa ci jël rek misaal maam Cheikh Ibrahima Fall mm-hmm. bi muy ñëw ci sëñ bi amoon na juddu ko rafet ndax ci famille royale la bokk famille bu noble amoon na alal ci nett yu bëree bëri ndax baykat la woon amoon na xam-xam maam Cheikh Ibrahima ñu bari li xamut mooy kenn ëpp ko woon xam-xam boo jëlee rek misaaloo euh, livre bi nga xam ne moom la moom la moom la bind da ngay gis da ngay jàng maanaam dimension intellectuelle bu maam Cheikh Ibrahima waaye am na lu ko manqué woon mooy lan mooy àgg ci suñu borom àgg ci suñu borom googu moom la ñëwoon di ko wër si ci ci ci Sëñ Tuubaa kon da ngay gis kon yit ju kawe ju maam xool ko ci euh, maam Thierno Ibrahima xool ko ci mm. suñu Tamba Abdourahmane Lo xool ko ci maam Cheikh xool ko ci si Massamba xool ko ci mag ñëpp mm. nga xam ne ñeen dañuy ñoo sëñ bi ñoo bokkoon deret mm. waaye lu ñu jël loolu lépp jaay ko jënd ko ak taalibe am na lu ñu war mooy lan mooy yëttu ju kawe gi ñu kon na nga gis bi yar na boppam ci yëttu ju kawe waaye yar na ci ñi nga xamante ne bii ñoom na àndaloon ñëw nga tamit ci ñaari ñaari ñaari xeetu yitte yi am mooy yitte ju kawe ak yitte ju suufe bu dee yitte ju kawe Mm-hmm. moom damay wax ne ñëpp ko war a bokk maanaam góorta rek concerné jullit yi ak euh, waa tasawuf ak murit yi mm-hmm. waaye yitte ju kawe ba ci tubaab bi sax dangay gis ne ku la ëpp ku la ëppale yitte ju kawe rek moo lay moo maanaam moo lay gën a réussir àdduna mm-hmm. fi ne boo xoolee entreprise bi ngay ñëw nii dafa liggéeyee sa yitte fu mu toll rek yow foofu la sa wàccuwaay ci entreprise ba di toll bu fekkee ne da nga bëgg nekk employé ba ni ngay jógee ci entreprise ba employé ngay nekk waaye bu fekkee ne da ngay viser poste poste njaatige ba mooy employeur bi nag euh, man àdduna mën naa dox ba nga ba nga nekk ko. dëgg ci politique bi tamit noonu lay demee fi ne ki nga xam ne poste mm-hmm. député rek lay viser moom ba àddunay tukki du du wees mm-hmm. poste député boobu. ki ki viser poste ministre noonu. waaye bu fekkee ne mm-hmm. nag ñëw ne président laa bëgg nekk yàlla mën na laa dimbali nga nekk président maanaam si suñu basxel comme day wax ne. Euh, ab juddoog awu meloog. yu ni mel maanaam kenn ku ne. Euh, suñu borom moo lay tànnal famille ba ngay bokk waaye wàccuwaay bi ngay am ci àdduna nag yow yaa koy sa bopp. Mm-hmm. ci àdduna yow yaa koy sa bopp mu mel ne kon yitte day feeñaat foofu mu mel ne waaw. Mm-hmm. mu mel mu mel kon yitte yitte day feeñaat foofu. Mm-hmm. ndax. Euh, loolu waaw. waaw dafa dafa am problème li nga mel ak ci waaye nag da ngay te yittee lay nekk mu mel ne tubaab bi sax dañuy wax ne tubaab bi sax dañuy wax ne pour atteindre la lune il faut viser les étoiles maanaam pour nga àgg ca pour pour nga àgg ca étoile da ngay viser la lune maanaam bu fekkoon ne da ngaa bëgg da ngaa bëgg am da ngaa bëgg a am euh, fukk mm. da ngay viser fukk ak juróom. noonu la noonu la noonu la nit ki mel ngir li nga xamante ne bi moom la bëgg man koo am ba ci lislaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne iza sa'altumullaha fas'aluhum firdawsul a'la bu fekkee ne dangeen ñaan yàlla na ngeen ko ñaan àjjana ja gën a kawe firdawsi mooy firdawsi kon da nga ci ciy gis ne maanaam nit ki buy visé rek ne visé la gën a kawe ba ci ba ci jigéen ñi sax maanaam fi ne mhm. ku ci ku ku ci ku la ci ëppale yitte ju kawe moo lay ëppale njaboot bu barkeel ci àdduna mhm. jigéen ñi ku ci ku ci ëpp ku la ci ëppale yitte ju kawe moo lay ëppale njaboot gu barkeel ci àdduna loolu mhm. loolu wa kër euh, Maam Anta Sali yi wane nañ ci yoon. Mm-hmm. ndax ndax soxna jaara mm-hmm. bi muy ñëw kër Mamour Anta Sali euh, fekk fi soxna Anta Ndiaye. jaara ñoom ñaar dañoo jaayante. ñoom ñaar dañoo jaayante. ñoom ñaar dañoo jaayante. jaara waaw kii ne dinaa fi jur asamaan ak euh, asamaan ak jant. kii ne dinaa fi jur asamaan ak. Mm-hmm. kii ne fi jur ak weer. Hmm. kii ne dinaa fi jur asamaan si nga xam ne moo boole jë euh, ëmb jant ak weer. nga xam ne kon ñoom xamoon na liñ bëgg xam nga yitte ju kawe daf daf cee bokk nga xam li nga bëgg maanam xam li nga bëgg ba noppi xool nag yor yoon wa nga xam ne moo ci moo moo la fa yóbbu nga jaar kon ñoom ñoom ñaar teel nañoo xam liñ bëgg euh, jaar ci yoon wi nga xam ne moo leen fa yóbbu ngir am ko moo tax xam nañ liñ bëgg ki ñoom ñaar ñëpp nee na dinañ fi jur wàll waaye lenn mooy tax ñu jur wàllu yi mooy liggéeyal seen borom kër ba am ba am gorom tax soxna Jaara bu sa daan xëy eh, wax nañu daan xëy dem tool dem tool taxani bu demee taxani ba ñëw togg eh, jox dongay ñu xewlu bu goon jotee mu dem bay bu gudd jotee mu ñëw togg reer eh, ba noppi daal di fanaanee naafila nga xam ne loolu mënut a ànd ak gudd fan moo tax wax nañu ne 33 ans la dund nga xam ne yooyu yëpp rek day firndeel maanaam yitte ju kawe joo xam ne amoon na ko soxna Anta Ndiaye tamit noon nga xam ne lool boo xoolee rek ci da ngay jàpp ne concurrence la waaye du concurrence wala boog bu demee bay nekk concurrence sax concurrence ci lu baax la maanaam concurrence bu positif ndax euh, saabixu ilal xayraat borom mi ngi koy wax ci alxuraan da ngeen concurrence waaye concurrence jëm ci lu baax boo xoolee saxaaba yi daanañ concurrence jëm ci lu baax kii ne nangami nangami rakk laa naa fi la Eh, kii mm. naan nangami fan laa woor kii naan nangam nangami istighfar la istighfar eh, mm. eh, laa def nga xam ne dañ daan concurrence waaye concurrence mm. di jëm ci lu baax kon dafa mel ne yitte ju kawe bokk na ci maanaam nga xam li nga bëgg jaar ci yoon bi nga xam ne moo la fa yóbbu ngir am ko moo tax dañuy wax ne jigéen mënut a nekk yonent waaye martaba bi topp ci yonente mooy siddiix jigéen mën na koo nekk kon maanaam. Euh, hmm. ni ci ni ni ni ci ni euh, maanaam ko góor yaayoo noonu la ko góor noonu la ko jigéen yaayoo waaye benn benn benn benn moyen bi rek lañ am pour am ko mooy am yitte ju kawe. Hmm. yitte ju suufe tamit comme ni nga ko waxee am na. ndax euh, am na ñoo xam ne seen yitte rek mooy nan la ñuy defee ba ba ba hmm. liggéey. am bu ñu bokk ak njaboot. wala li ñu am hmm. ñu takk ci ay soxna wala boog euh, ñu wut ci ay kër wut ci ay oto et cetera nga xam ne ñoom seen yitte jëpp dañ ko tënk ci matériel. Hmm. am na ñoo xam ne seen yitte jëpp dañ koo tënk ci matériel am na ñoo xam seen yitte jëpp dañ koo tënk ci àdduna maanaam liggéeyuñ wala jéemoo suñu borom ngir am ngir am àllaaxira waaye seen yitte jëpp ñoom dañ koo tënk ci ci àdduna loolu mooy yitte ju suufe si mbas hmm. euh, xel kom joxee na misaal ci euh, comme ni nga ko waxee léegi ci picc mi nga xam ne. Euh, day xëy génn tàggam dem dem fori bu ñëwee lam am mu bokk kook njabootam maanaam mi ki nga xam dafa am yitte ju suufe moom picc moom ñooyam kon loolu mooy différence diggante yitte ju kawe ak yitte ju suufe yitte ju bokk na ci nga am euh, maanaam utilité utilité ci société bi nga xam ne ci ngay dund mm-hmm. am na ñoo xam ne maanaam amuñu sentiment wu euh, mm-hmm. utilité ci société bi nga xam ci lañu dund ndax mm-hmm. wolof day wax ne maanaam Euh, njariñ loo fekke am na la fi koy wax njariñ loo fekke loolu dafa naan wax ju yàqu la ndax boo jëlee Serigne Touba liggéey bi nga xam ne moom la moom la liggéey ak mission bi nga xam ne moom la accomplir ci tajdidu sunnat nabi sallallahu alayhi wa sallam boo xoolee li ci ëpp ci ginnaawam la feeñ dafa mel ne lu ci ëpp lu mu doon def ngir nit ñi la ko doon defal mhm. nga xam ne kon moom njariñ gi dafa mel ne fekkewu ko ci zahir mag ñu baax ñëpp noonu lañ def mhm. kon euh, sentiment d'utilité boobu bokk na ci liy màndargaal nit am. Mm. am yitte ju kawe. Euh, yitte ju kawe mm. tamit bokk na ci tey jii li nga xam ne mën nañ ko roy ci ci mm-hmm. réewu tubaab bi. ci net tubaab bi boo mm-hmm. xoolee yitte ju kawe euh, moo leen yóbbu mm. seen développement bi ñu am ci wàllum koom. moo leen mm-hmm. yóbbu seen développement bi ñu am ci wàllum social. ndax damay wax ne nit ki nga xam ne moo jógee ci réewam ñëw installé wu fii ci diaspora bi am na ñaari yox xam ne war na ko bàyyi xel. mooy li nga xam ne moom la fi indaale ci ay valeur Mm. ci ci diine ci culture mu sàmm ko mm-hmm. waaye li nga xam ne moom la fekk ci ci ci ci ci wàllu ci wàllu développement ci wàllu modernité ak ci wàllum euh, bëgg liggéey mu fexe ba adopté ko buy dellu réew mi yóbbaale ko mm-hmm. mooy li Senghor di wax ouverture ak enracinement waaye loolu ci ab jullit mooy nga garder sa diine ba dara du ko laal waaye li nga xam ne li nga xamante ne bi gis nga gis nga ne ay valeurs yu baax la nga fexe ba adopté ko booy dellu sa réew yóbbaale ko kon loolu hmm. bokk na ci yitte ju yitte ju kawe tamit yitte ju kawe bokk na ci li ñuy wax maanaam nit koo xam ne dafa mën a représenté ni nga ko waxee nit koo xam ne dafa mën a représenté ay nit yu bari ndax di nga am mbooloo hmm. mën naa ci jël rek exemple euh, euh, Seydina Ibrahim nga xam ne suñu borom mi ngi wax ci alxuraan naan inna Ibrahima kaana ummatan xaanitan lillahi mbooloo waaw hmm. nga xam ne Ibrahima moom moom dafa dafa représenté woon nation kaana ummatan xam ne jëmmi Ibrahima moo représenté woon nation suñ suñ Tuubaa tamit mi ngi koy wax ci waxiila rubba rajulin ka alfin mm-hmm. wa rubba rajulin xiimatin ko uffin mm-hmm. nga xam ne am na am na bariwaale bariwaale mm-hmm. nit koo xam ne day taxaw taxawaayu junniy nit waaye junniy nit yoo xam ne dañuy taxaw taxawaayu zéro nga xam ne kon da gis ne maanaam jiitu ju kawe dina tax dina tax nit taxaw taxawaayu mbooloo di nga gis daayira boo xam ne juróomi nit rek ñoo koy composé mm-hmm. waaye juróomi nit yooy danañ jëf jëfi junni mm-hmm. nit waaye di gis daayira boo xam ne junni nit la ñàkk noso ak ñàkk ànd nekk benn ak mm-hmm. xëccoo ak xiiroo dina tax ba da juróomi nit yooyu def sax duñ ko mën kon yitu ju kawe bokk na ci maanaam kenn ku ne nga am sentiment utilité waaye kenn ku ne nga am sentiment que ne yow mën ngaa def loo xam ne mbooloo mënuñ ko def euh, yitte nag comme ni nga ko ni nga ko leeralee léegi maanaam dafa am différence ak mm-hmm. ak ak ak ak euh, mbébét maanaam yitte mooy nga xam li nga bëgg nga jaar ci yoon wi nga xam ne moo la koy may waaye mbébét moom mooy ngay mbébét rek di teg mm-hmm. na ñoo xam ne dañuy mbébét rek teg bëgg na maa nekk lii na maa nekk président bëgg na nekk lii waaye jaaroo ci nga xam ne moo la mm-hmm. mooy loolu mooy mbébét maanaam bëgg na maa am xaalis joo xam ne yow doo jéem a dem dem di defi effort pour liggéey loolu mooy mbébét kon mbébét bokkul ak ak li nga xamante ne bii mooy mooy yitte. moo koy moo koy may waaw. Euh, euh, bokk na ci yitte tamit maanaam nga opportunité yi yi nga xam ne moom nga am ci àdduna nga saisir ko. bokk na ci yitte ju kawe opportunité yi nga xam ne moom nga am ci àdduna nga saisir ko maanaam suñ borom euh, day wax ci alxuraan ne wa taxi fi ma ateeka laaw daara laaxira wala tan sa nasibaka mina dunya comme ni nga ko waxee maanaam suñu borom euh, dalaa bind jox la mboolem faculté yi suñu borom bind la jox la mboolem faculté mentale jox la faculté physique nga nekk nit defu la defu la defu defu la mbala defu la njanaaw hmm. ndax suñu borom li ëpp ci lim euh, wala wala boog li gën ci lim bind mooy nit wala xadd karam naa bani aadama amal naa am fil barri wal bahri wa razaqnaahum mina tayyibaati wa faddalnaahum la wax wa faddalnaahum ma gënal leen wa faddalnaahum alaa kasiirin mimman xalaqnaa tafdiilaa ma gënale leen ci mboolem créature yi nga xam ne moom la moo am. kon yow bu la suñu borom joxee euh, defee nit jox leen mboolem faculté yi nga xam ne mooy faculté mentale jox la xel jox la ay faculté physique jox li nga xam ne mooy mooy mooy physique ngir lan. ngir ngir ngir sàkk ci yow nga nga nga saisir opportunité yi nga xam ne moom nga am ci àdduna loolu da nga ko war a saisir loolu bokk na ci mm. yitte ju yitte ju kawe ndax euh, dañuy wax ne àdduna àdduna ak alaaxira maanaam ñoo bokk yoon yoon bi nga xam ne moo lay yóbbu ci ci àllaaxira mooy yoonu àdduna maanaam mënoo mënoo ne ne damay damay damay mm. damay liggéey euh, damay def commerce damay def euh, ay activité économique waaye damay def euh, ay investissement ci yenn domaines yi loolu mooy ngir àdduna loolu sa maanaam mm. liggéeyu àdduna la waaye pour liggéeyu àllaaxira nag ne damay damay dem jaamu ci damay def istighfar damay def salaatu ala nabi damay jàng xasida damay jàng alxuraan déedéet maanaam yoon ne moo lay yóbbu ci àdduna même yoon bi moo lay ndax liggéey bi ngay def da nga war a jàppee jumtukaay boo xam ne da lay euh, àggaleeg sa borom ndax ci yoon wi boo jël boo xoolee kàngam mi gën a mag mën naa ci jël exemple maam Cheikh Ibrahima Fall mën naa ci jël maam nga xam ne moom demoon na ba ëpp alal ci Sénégal gépp ak ci Afrique de l'Ouest waaye alal nga xam ne moom la amoon da koo jëloon def ko jumtukaay ngir jege borom ndax daana ci dimbale ay nit daana ci euh, tabax ay jàkka daan ci daan ci fay ay imam nga xam ne mbooleem loo xam ne day tax euh, nga am ngërëmul sëñ borom am ngërëmu sëñ bi euh, alal jooju da koy servir man naa jël exemple sëñ Saliou lu toll ne li nga xam ne moom loolu moom la daan bay ci ay hectare ak lu toll ne li nga xam ne moom la daan yar ci ay nit mbooleem li li mu ci doon am da koo defoon jumtukaay ngir jaamu ci suñu borom kon liggéey maanaam bu fekkee ne liggéey bu bu bu bu bu bu légal la liggéey boobu la nga ciy am yow bu fekkee ne da nga koy jàppee jumtukaay ngir jege sa borom rek loolu bokk na ci tëju kawe. loolu da ngay gis exemple yu bëree bëri ci yoonu murit yoo xam ne yoo xam ne euh, da nga ko ci gis euh, moo tax te jii bu ay nit di taxaw di wax naan euh, maanaam sëriñ bi wut alal loolu defe naa ne waxi waxi juumte la. ndax boo xoolee euh, sëñ bi projet yi nga xam ne moom la fi bàyyi muy projet yi gën a mag muy muy muy jumaa ji muy mhm. mm, aj màkka muy daaray xam-xam ci amul ci benn projet boo xam ne ay wax a koy réaliser mhm. Mhm. projet boo jël rek alal moo koy moo koy réaliser kon euh, maanaam euh, loolu wax ju yàqu la ndax sëriñ bi li si mën Moustapha doon wax rek ne Sëriñ Tuubaa soxla na ñent ki ci jiitu mooy Mm-hmm. boroom alal ji nga xamante ne dafa liggéey alal ju alal ju lew mm-hmm. ba am ko taxaw temm ci delloowaat ko sëñ bi wala delloowaat ko suñu borom mi ko jox jaar la ko ci sëñ bi mm-hmm. xam-xam nga xamante ne bii dafa sàkku xam-xam mu moo xam mu nekk xam-xamu diine wala xam-xamu àdduna taxaw temm ci euh, liggéeyalaat ci euh, suñu borom jaar ko ci sëñ bi wala borom doole ji nga xam ne dafa am kàttan taxaw temm ci kàttan loolu mu liggéeyal sëñ bi ak borom xel mu rafet mi nga xam ne dafa am xel mu rafet taxaw teem ci xel mu rafet moomu mu liggéey ak bi kon danga nga gis ne sëñ bi ni mu soxlaa borom euh, borom xam-xam soxlaa noonu borom alal euh, soxlaa noonu borom doole soxlaa noonu borom xel mu rafet noonu la soxla borom alal ndax wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribaatil xayli la suñu borom wax maanaam seen noon yi na ngeen jàmmaarloo ñoom ci lan ci doole doole nag bu ñu ko mooy alal. doole bi ñu ko xee mooy pouvoir doole bu ko waxee mooy mooy xam-xam kon doole ni ko tubaab yi soxla noonu la ko ñu jullit ñi euh, soxla loolu lépp nag euh, day dugg rek ci yitte ju kawe yi nga xamante ne bii. Mhm. moom nga doon moom nga doon leeral léegi. Mhm. kon dafa mel ne euh, Serigne Touba. Mhm. yitte ju kawe maanaam wane na ko ci jëmmam. wane na ko ci jëmmam waaye yar na ci ñi nga xamante ne bii ñoom la ci ñoom ñoom ñoom ñoom la àndal mission bu bu bu mat bi. Euh, kon damay dugg si rek ci ñaareelu ñaareelu hmm. parti bi nga xam ne. Euh, hmm. mooy parti bu mujj sax. ci euh, mu mel ne kon Serigne hmm. Touba mu mel ne kon Serigne Touba. sant gi ñu gi mu sant nga xam ne moom ngay wooyee almadinatul afdaliya dafa mel ne day dugg ci day dugg kon ci. yitte ju kawe jot. ndax Touba tey ji bokk na ci wala bokk mooy xusuusiyaat yi nga xamante ne bi moom la am mooy benn ville bi nga xam ne moo am ci monde bi. dëkk boo xam ne kenn du fa tox dëkk mm-hmm. boo xam ne kenn dafa euh, soloo naka sudu noonu dëkk boo xam ne kenn dafa mm-hmm. naan sàngara nga xam ne loolu boo doon euh, boo doon wër ci monde bi amul benn dëkk boo xam ne di nga fa gis privilège yi Touba am mm-hmm. mu mel ne kon bokk na ci dëkk yi yi ñu mujjee sànc ci Touba ci ci ci Sénégal bokk ko comparé fii euh, bokk na ci dëkk yi mujjee sànc ci Sénégal ndax amagul téeméeri at ak juróom xoolee dëkk yi mag yi ngay jël ay Dakar ay ay saint ay Kaolack ak i Bambey dëkk boo jël rek hmm. am na lu mat ñett téeméer at jàpp ñeent téeméer at tey ji lan moo tax Touba nekk ñaareelu ville bu Sénégal ci wàllu démographie ak ci wàllu économie hmm. ak lan moo tax Touba tey ji amul benn position géographique boo xam ne bu favorable na ndax Touba doone dañ fay bay Touba amul euh, amul maanaam euh, surface cultivable amul amul fu ñu mën a béyee ñaar ba mooy amul fu ñu mën a mener ay activités de l'élevage amul fu mën a samp amul euh, zone zone industrielle amul aéroport amul port kon tey jii lan moo tax Touba am am am position de choix bi ci wàllu économie ci ci wàllu démographie mm-hmm. ndax euh, baatin la boo xam ne sëñ bi ndax ndax ci li yàggut rek ñuy wax irrationalité irrationalité bu ñu ko waxee mooy loo xam ne amul explication barki dem ci affaire coronavirus bi ci cas yi Touba yi am na médecin yu doon wax ne ñoom li xew Touba ñoom comprendre ko dañ koo jàpp irrationalité maanaam loo xam ne du du luñ mën a du luñ mën a expliquer dañ koy jàpp rek baatin ndax loolu day baatin mm-hmm. wala ndax nit ñi nga xam ne ñoo jóge ci yeneen dëkk yi di sanc di sanc si Touba euh, dañoo ñëw ngir ngir àgg ci seen borom di nga wax ci ci ci yëttu ju wala dañuy dañoo ñëw ngir wut si facilité ndax gis nañ ne mm-hmm. Touba tey jii li am Dakar amu fa euh, dund ko yomb na ah solidarité ba bari na fa tey jii gis mm-hmm. nañ suñu Mountakha li te def barki dem ci wàllu aide alimentaire yi jël ceeb bu bëree bëri dund bu baree bëri mm. di ko séddale ñi nga xamante ne bi ñoo nekk ci mm. ci sancaane ñi nga xam ne ñooy soog a tuxu si kon bëggoon naa loolu tey ji nga mm. def rek benn corrélation ci diggante loolu ak yitte ju kawe nga xamante ne bi moom la sëñ Tuubaa euh, sance sance Tuubaa boobu ndax leeral nga ko ci ne sëñ bi jóge na Mbàkke Kajoor ñëw Mbàkke Bawol ñëw Daaru Salaam sanc ko daal fay jógee soog a dem sanc Tuubaa kon euh, maanaam bëgg naa nga def euh, corrélation ci diggante yi tëju kawe ak ak euh, sanc nga xam ne moom la sanc ak fi Touba ak si tey mm-hmm. Mm-hmm. Euh, jërëjëf sëñ sëñ sëñ Hamidou euh, euh, leeral nga lu am solo ci lañ doon wax liñ doon waxoon ci njëlbeen gi ci yitte mooy moom mooy lan yitte mooy lan ci dégg-dégg bi gën a jege ci ci ñu ko jàpp bu dee ci li ci li doon wax léegi Touba de dama koy tuddee al madinatul fadiliya mooy dëkk boo xam ni lépp dafa baax loolu nag dafa am ci lu mu lalu li mu lalu nag mën nañ ko tuddee yitte ju yitte ju kawe ndax jàpp ñu woon nit xam nga bu njëkk nit ñi dañ daan sañ ci dëkk rek ngir ngir dëkk fa ngir am fu ñu mën a dëkk dañ daan sañ ci dëkk rek ngir xëy na dëkk bi seen cosaanal maam la woon ñu dekkil ko wala yu ma noonu wala mu am tund woo xam ne seen maam dafa sañ foofa ay dëkk ñu dem sañ ca wet ga waaye sañ ab dëkk ngir jëm yàlla kese kese kese kese kese am yàlla rek ko lal euh, dafa bokk ci gën a jafe yoo xam ni boo ko doon wër dina jafe nga ngeen nga gis ko ci ci ci àdduna bi ñaareel ba mooy sancib dëkk ba noppi lu dul ndigalu yàlla amu fa loolu ci tuuma képp la am waaye yooyu yëpp nag objectif yi moo moo moo moo moo moo wuute itte yi moo wuute li sëñ bi li nga xam ne moom moom la fekkoon mu mel ne lu jomb mu ñëw jàpp ne loolu mën naa am moo tax mu àgg ci e, e, mu mu mu mu amee ko ni mu ko ni mu ko ni mu ko bëggee woon nii te mooy sañ ci dëkk boo xam ne yàlla rek lañ ciy wéetal yàlla rek lañ ciy jaamu amul jaamu la neen lu dul yàlla amul euh, juyoo ak ndigal yàlla léegi nag bi mu fi ñëwee li tax nit ñi topp si ko fi mooy euh, pas-pas pas-pas moo tax nit ñu topp si ko moo waral dëkk bi nii muy màggee nii mu màggee nii nit ñi bu fekkoon dañuy taam ngir dëkk foo xam ne xëy na dañuy xool ci wàllu climat di xool ci wàllu commerce di xool ci wàllu environnement di xool ci wàllu yu bari du ñu ñëw dëkk si Touba waaye Touba mën nga ni ñi fi dëkk li leen fi dëkk leen képp la mooy passeport mooy mooy euh, ànd gi ñu ànd ak sëñ Touba gis ni euh, yàlla da leen jëmee euh, kon fu mu dëkk fu ne cofeel gi ko sopp a ni ñu ko bëgge ak topp gi ñu koy topp moo tax foofa mu leen di gënal faneen fu mu mën a doon moo tax murit boo laaj Touba ko gënal fu mu mën a doon ñi juddowul Touba sax da nga leen di wax ñun la ñun waa Touba rek da nit du nangoo dëkk Dakar du nangoo dëkk Thiès du nangoo dëkk Ndar dan waatu wala te xëy na eh, ay waajuram dëkkuñu fi eh, waaye moom ab morin la rek moo tax fi suñ bi dëkk moom moom moom lay moom lay am ñoo xam ne cosaanu wuñ fi seen waajur cosaanu wuñ fi waaye fexe nañ ba jënd fi kër ngir dëkk fi yooyu yëpp nag bi amee eh, dafay dellu rek ci li taxoon sëñ bi sanc ko li taxoon sëñ bi sanc dëkk bi ndax dafa wax ni bi may ñëw ci dëkk bi ñaara ma fi indi bi ma fi accès ñaar laa fi fekk bi ma fi ne jàng ab diir ñaara ma fekk bi ñaari ma fi andi mooy daw nit ñi ak li ci loxol nit kon da doon wut yàlla kese maanaam wattandiku nit ñi ba mën a wéetal yàlla waaye poñetum àdduna mi nekk ci loxol nit ñi mu wattandiku ko ngir mën a wuti yàlla kon daw nit ñi ak lu ci loxol nit ñi moo ko andi ci dëkk bi nee na bi ma fi accès wandaw pël ak saawas nag laa fekk mooy yoon wu pël ay pël di jaar ak yoon wu ay nag di jaar kon fekku fi dara la wax fekkul dara kon ab gott la fekk nee na ma fe ne jàng yàlla rek tax ko jóg ak koo xam ne day wut àdduna di mbubboo yàlla nee na ñaari yoon nit ñu fekk waaye jaaxalu ma ndax bu àdduna la yàlla jox na ma ko ba mu day sëkk te yàlla day eh, yàlla eh, am na fi bu dee suñ bu yàlla day am na kon eh, loolu wane na li taxoon mu ñëw ngir sañ ci dëkk bi biñ fi accès itam limu mu njëkk wax ci xasida gi nga xam ne mooy làkku Tuuba di projet de société wu Touba nga xam ne li mu bëgg dëkk bi mel ko lépp ci la ko wax ci la ko ñaan ni mu bëgg waa dëkk bi mel ko yi ci la ko ñaan ni mu bëggee dëkk bi mel noonu ci la ko ci la ko wax ni mu bëgg waa dëkk bi mel noonu ci la ko ñaan waaye moo tax ci njëlbeen ga rek dafa wax ginnaaw bu sant yàlla dafa wax ne wajarrani